asalaamaaleykum dal leen nag jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jile li ñu gën a waxtaanee mooy Ousmane Sonko bi nar a wuy ji juge bi tey ji ci àllarba yi dañu koy doox ak Sud Quotidien di ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication jaamarloo ci diggante ñooñu Ousmane Sonko yeeg takk der yi nga xam ne ñu bëri ci askan wi dañ kaa ragaloon ginnaaw gi Ousmane Sonko ne du dem wuy ji kanamu yoon bu ñu moyul du am benn yoon li ko waral mooy njiitu parti bi di Pastef les nga xam ne dañoo teg ci ndoddam benn plainte ngir sekk ak jigéen te àndu teg ci di araftu ngir faati bakkan dafa jël dogal ni daal day dem wuy ji juge d'instruction bu juróom-ñetteelu cabinet di du Seck juge boo xam ne tey jii ci àllarba gi la ko woolu ngir mun kaa déglu bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi fare ci avenue Bourguiba deltu gannaaw Ousmane Sonko bi nag ñi ne ci gannaaw mooy ñi koy layool sëriñam nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu langue politique bi te ku nekk nag indi ci ab lay bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien alhamdulilah Ousmane Sonko dana dem wuy ji juge ba muy kàdduk Les tey nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkati démb ci kanamu taskatu xibaar yi ne ginnaaw gi mu dégloo ñëpp nag mi ngi xamal waa réew mi ne ëllëg ak jàmm maanaam tey jiiti àllarba bi ci waxtu bi ñu ko sàqu dana dem wuy ji juge bi déglu lan la koy yeggee Ousmane Sonko yokk ci ni loolu wanewul benn yoon nag ni xade bi jeex na nee na combat bi si boppam moo dooragul Ousmane Sonko teg ci nii dossier bi ñu ko yóbbee ci kanam yoon sekk ak jigéen te àndu ca dara amu ca moo tax it daal day bañ dugg ci ndëgg sarax ñu dugal beneen boobule dossier boo xam ne dara newu ca ñu des ak Ousmane Sonko ak lii quotidien ne Sonko daal deltu na gannaaw bu baax a baax lii quotidien del si it ci li ko sëriñam wax ak it sàkkuteefu militant mi ci mbir mi njiitu Pastef dana dem ci kanamu juge bi wuyi jiko bu ñu sukkandikoo ci Vox Populi bi ñuy xamal ne Ousmane Sonko mi ngi indi ay lay ci lan moo waral mu deltu gannaaw nee na ñi tax ba mu deltu gannaaw bokk na ci yenn ci ay kilifa diine ñi fare ci société civile bi ñi koy layool njabootam ak ca mi ngi ñuy wax nag fan la combat bii di teeree nee na naam sax mun na am ay jeexital ci moom wante Macky it mën na ci ñàkk nguur gi mu tekki ne Macky Sall ñu ngi ruumandaat ne daje nag aji saa waa tribune bi ñu xamal ne ci jàkkaarloo mag juge bi tey jilee Ousmane Sonko daal bu ñu moyul narul addu benn yoon mu dellu si it ci ñetteelu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir waxtaan ak askan wi bu Ousmane Sonko mu xamle ne ne dossier yëpp nga xam ne dafa lalu ci wàllu politique yoon wàllu politique la ci gën a fësal mu teg ci ne nañu laaj Macky Sall Sall ndax xam na Adji saa jàkkaarloog juge bi ak Ousmane Sonko soxalit waa l'enquête ne tey ji daal sonkoo dana jàkkaarlook lépp loo xam ne daal ñu ngi koy teg ci ndoddam mu yokk ci ni Macky Sall lenn daal ka tax a jóg mooy fexe bëggee ne turu Ousmane sonkoo ci liste électorale bi mu teg ci ne bu ma demul wuy ji ci bile convocation nag man daa dama ne ci boppam lañ mën a indil ab Abdou Mbacke moom di rafetlu mbir mi bu baax a baax ne lii day tax ba jàmm dellusi si réew mi ñu des si tribunal de Dakar ak libération bi ñuy xamal ne nag ba bu mun a ànd ak na lay doon ndax Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye ñoom ñaar ñëpp nar a jàkkaarloog juge huitième cabinet bi tey jii bu 9h ak 10h jotee libération di ñuy xamal ne ñetti responsable Pastef ak FRAPP fële ci Touba la ñu woolu ci kanamu juge bi fukki lingeer ak juróom-ñaari Ousmane Sonko yi nag tey jii la ñuy xam fu ñuy mujjeeg yoon ñu des ba tey ci ak juge bi ak waa l'Observateur bi daal weer wu am solo la ngir Ousmane Sonko ginnaaw gim nar a dem ci tribunal bi tey jii mook ki jiite salon de massage bi di Sweet Beauté l'observateur di ñuy xamalit yenn anam la juge yu mën a doxalee tey jilee ci mbir mi dellu si na it ci li Sidi Ahmed Mbaye wax magistrat bi bu ñu jugee ci Ousmane Sonko ak jàkkaarloo bi mu nar a bi tey jilee ñu waxtaanee mbas mi ginnaaw benn at goo xam ne mi ngi ci miim réew ak le soleil bi dellu si ci xayma yi nga xam ne moom la ñu def jëmale ci yorin wi soleil di ñu xamal ne lu ëpp juróom-ñaari milliards ci kopparu CFA la ñu teg ci taabal bi ngir jënd ay garab ak lépp loo xam ne daal day xeex mbas moomulee soleil di ñu xamal ne junni ci waa kër docteur yu teg ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo amee doomu jàngoro bi ñaar ñàq ci seen bakkan ci jamono ji nga xam ne door nañu campagne vaccination bi nag Sénégal taxawaayam am na ci solo ci l'Afrique ñu des ci wàllu mbas mi ak laas di ñuy waxtaane it atum lëmb bi nga xam ne moom la ñuy dund ak mbas mi mu dellu si ci pexe yi ñi lal ngir xeex ko xayma yi ñu ci jot a def ñàkk yi ak bépp jéegoo ñu des ak mbas moomu lee ak les échos loofal na bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu tourisme bi bu ñu sukkandikoo ci racine si bokk ci kuréel bi ëmb ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàll wi nag ne mbas mi daal loofal na leen bu baax a baax ndax seen chiffre d'affaires yi fi mu toll nii daal dañ kaa xaaj fukk libération di feelu les échos ci loolu le tàggat yaram dañu koy doox ak Sud Quotidien bi ñuy xamal ne comité d'urgence bu fédération sénégalaise de football ànd na bu baax a baax ak protocole de Rabat bi déggoo boobu nga xam ne nag day sàkku ci maître Augustin Senghor mu nekk premier vice-président bu confédération africaine bu football ñu des ci mbir mi ak record bi ñuy wax nan la nguur gi def daal ba nërmeel kii di maître Augustin Senghor moo ne ci gannaaw Augustin Senghor ba mujjee am la mu bëggoon ca moom ba mu siife protocole boobu lee loolu amee ci dibeer bi ñu génn ginnaaw ndajeeb ñaari fan goo xam ne nag ñi ko sekkoon mooy ñetti candidat yi nga xam ne dañoo doon xëccoo bopp confédération africaine de football waa stade ne maître Augustin Senghor nag bu yeboo rek mu profito mu dem ci ba jeex neex ñu jeexale kook waa sunu lomb bi ñuy waxtaanee wàllu ëmm ëmma bi nga xam ne moo tere nelaw VIP yi fare ci géejawaay ndax ëmm dana ñëw saax-saaxe Lac ak Balla Gaye Balla Gaye bi nga xam ne jot naa mos ñaari yoon ci kanamu ëmma ak Lac bi nga xam ne jot naa ñam ba jël la walam lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm bonjour la convocation de Ousmane Sonko par le juge d'instruction, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Affaire Sud Beauté, Ousmane Sonko face au juge, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que la confrontation entre Sonkis et de l'ordre, tant redoutée par la grande majorité des Sénégalais suite au refus de Ousmane Sonko de déférer à la convocation de la justice, pourrait ne pas avoir Pour cause, le parti Pastef Les Patriotes, qui est ou d'une plainte pour viol répété et menace de mort a décidé de répondre au juge d'instruction du huitième cabinet, Mamadou un juge qui a convoqué le député ce jour pour audition. Selon le confrère de l'avenue Bourguiba, le rétropédalage d'Ousmane Sonko est la résultante d'une action menée par son pool d'avocats, son guide spirituel, des acteurs politiques et pour des raisons de divers ordres précises. Sud Quotidien, Les Échos, titre sur Ouf, Sonko va répondre C'est pour éviter de nouvelles charges et préserver son intégrité physique. Sonko déclare, je cite, Après avoir écouté tout le monde, j'annonce aux Sénégalais que demain à l'heure indiquée, nous irons répondre au juge et écouter ce qu'il va dire. Cela ne signifie pas qu'on a abdiqué, la lutte n'a même pas encore démarré. Sonko de poursuivre, comme s'il n'y a rien dans le dossier de viol, il faut éviter le piège de créer un autre dossier dans le dossier. Le leader de Pastef va déférer à la convocation du juge. Ousmane justifie sa volte-face dans Vox la société civile, ses avocats, sa famille et son parti. Sonko prédit l'issue du combat. Nous pouvons perdre des plumes dans ce combat, mais Macky peut y perdre son pouvoir, affirme Ousmane Sonko, qui ajoute que Macky Sall aurait reçu Adji Sarr. Sonko capitule dans Le Quotidien, qui revient sur les exigences de ses militants et également sur ce qu'il a dit à son marabout. Sonko de déclarer c'est à chaque étape sa stratégie. Cette volte-face de Ousmane Sonko, critique l'assimile à une volte-face patriotique qui nous dit que le Nigel de Serigne Abdou Mbacké éclipse la résistance et le leader de Pastef fait don de soi au juge. Sonko chez le juge d'instruction aujourd'hui, l'exception sénégalaise triomphante selon Rewmi Quotidien. les Sénégalais respirent mieux depuis hier parce que la défiance du citoyen Ousmane Sonko, par ailleurs leader politique à l'égard de la justice, n'est plus d'actualité. Le leader du PASTEF au tribunal ce matin, Sonko risque d'être muet face au juge, selon Tribune, qui revient sur la troisième sortie médiatique du leader de PASTEF. Tous les dossiers politiques ont été gérés politiquement par la justice. Et il ajoute, demander à Macky S'il connaît Adji Sarr, audition devant le juge, Sonko face à ses démons, souligne l'enquête. Macky Sall a un objectif principal qui est de radier Ousmane Sonko des listes électorales. Il poursuit, si je ne défère pas la convocation, la conséquence serait peut-être un mandat d'amener au moment où Serigne Abdou Mbacké se félicite d'un premier pas vers la paix et la stabilité. Audition de Ousmane Sonko par le juge, mars fatidique, estime l'observateur. Le leader de Pastef au tribunal ce matin, patronne de Sud Beauté. Le confrère revient sur les deux options qui s'offrent au juge du huitième cabinet et sur ce qu'a dit Sidi Ahmed Mbaye ou magistrat instructeur. C'est un mercredi de tension, estime Libération. Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye face au juge du huitième cabinet à 9h et 10h. Libération informe que quatre responsables de Pastef Touba et de FRAPP devant le doyen des juges est très en colère hier. Les 17 linguères de Sonko édifiés de santé. Intéressons-nous à présent à la Covid-19, un an après le premier cas de coronavirus. Les chiffres d'une gestion maîtrisée de la pandémie titre Le Soleil. Plus de 7 milliards de francs CFA dépensés en médicaments et produits de prise en charge, une prévalence de d'anticorps dans la population générale, agents de santé touchés, dont deux décès, et toujours selon Le Soleil, le Sénégal a déjà un taux appréciable de couverture vaccinale en Afrique. Restons covidé avec l'AS qui revient sur la stratégie de lutte, les statistiques, les vaccins et les défis. Hier mardi, les autorités sanitaires sénégalaises ont effectué le bilan annuel de la gestion de la Covid-19 et sont largement revenues sur l'évolution du virus dans le pays. Restons avec le virus avec son lourd impact. L'industrie touristique totalement à l'agonie selon Les Échos. Selon Mamadou Racine Sy de la Fédération des organisations de l'industrie touristique, les chiffres d'affaires de nos hôtels ont été divisés par 10. Avec la faillite du plan de relance, 40 000 emplois selon Libération. En sport, présidence de la CAF, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football valide le protocole de Rabat selon Sud Quotidien. Protocole dans lequel la FIFA propose à Maître Augustin Senghor le poste de premier vice-président de la CAF. Comment l'État a coulé Maître Senghor Titre record qui informe que c'est sous pression de l'État du Sénégal qu'Augustin Senghor a finalement signé le protocole de Rabat dimanche dernier au terme prochaines élections de la CAF sous la supervision de la FIFA et du Maroc. Restons avec Maître Augustin Senghor, c'est le moment ou jamais d'oser selon Stades, le quotidien du sport. Il doit suivre l'exemple de son grand frère, Anouman. Terminons par Sunu Lamb qui nous parle de la bête noire des VIP de Guédiawaye. Eumeu va-t-il mettre Lac 2 et Balla à ses pieds? Balla Gaye 2, vacciné deux fois, Lac 2 prend son lowel. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.